boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi siyaare suñu bokki taalibe yëpp di siyaare kilifa yi nga xam ne ni ñoo teewee jataay bi sëñ Abibulahi Mbàkke mi nga xam ne mooy njiitul Touba Ca Kanam ñu ngi koy siyaare bu baax di ko jaajo ci teewaay bi di Abdoulahat Mbacke mu sëñ Abibu mi xam ne mooy jëwriñ liggéey bi ak alaaji sëriñ Tàkku mu Cheikh Amadou Fadal ak président sëñ Abdou Fatah Gueye waaye di nuyu soxna Bintu Mbacke mu sëñ Abibu ak mboolem soxna yëpp fu ñu mën a nekk di ñaanal bu baax Cheikh Mamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko xam naa kàddu yi nii yëkkati dañ koy tàmbalee ci ci moom ndax ni mu baaxoo jëflante ci lislaam bépp waaye rawatina ci Touba ci kanam gi ci mboolem mbir moo xam ne dañ ko dañ ko sumb rawatina ci commission bi nga xam ne mooy commission sociale bi nga xamee ne nekk na Cheikh Mamadou Mbassir Cheikh Mamadou Mountakha liggéey bi tàmbali baaxoo woon na at mu jot mu mu jaayantel boppam waaye jaayantel juróom-ñeenti murit yoo xam ne ni am nañ yéene te seen kàttan may mayewu ñeenti murit saalix bi nga xamee ne doon na Serigne Touba Cheikh Cheikh Mamadou Mountakha itam gis ngeen ngi def at mu jot juróom-ñeent ak juróom ak ak ak moom muy téeméer waaye loolu rek doyoon na sëkk waaye taxul lépp lu ñuy yëngu rek moo cay njëkk moo cay man ci ni mu ko defee woon ci koor gi joxe woon ci téeméeri barigoy dugub ak téeméeri barigoy ceeb noonu la ko defewaat ci tabaski gi muy téeméeri barigoy dugub ak téeméeri ceeb ñu ngi koy ñaanal sunu borom defal ko mu yàgg fi loolu téwéer ko xam naa cant ga war ca moom dañ koy bàyyee kilifa yi li nga xam ne moo ñu dajale fii tey nag mooy li nga xam ne moo ñu fi baaxoo dajale buñ tolloo ci di waajal tabaski te mu doon sunna soo xam ne nii dafa war ci képp goo xam ne nii ab jullit la as gor la te man na ko mu am ci yoo xam ne dañ koo sopp ci bisu tabaski gi bokk na ca nag muy ay yëre yu yees ci ku ko man tabaski léppam sunna la wa may yarxabu xam millati ibrahima ila man safia nafsa loolu moo waral nag ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi at mu jot bu dellusee ñi nga xam ne ni yàlla xaw na xaw na leen koo man loo ñu gestu seen bokk yi nga xam ne nii ñoo nekk ci dëkk bi te seen suñu borom def seen loxo jëru seen ginnaaw ndax li ma waxoon rek dëkk bi dëkkub sunna la wa daara sunnatin wa man jan bin bi dax loolu la suñ boxoon waccal binaa iya binaa xilmi waxamane bi sunnatin wa xilmi loolu noonu ma waral ci yëre yi nga xam ne nii moom lañ baaxoo laaj muy yëre yu yees yoo xam ne danañ ko mën a jottali suñ bokki taalibe yi bañ ko tàmbalee dañoo woowoon association tailleur ci njiital Serigne Mbaye Sarr ak association bi nga xam ne mooy CMD ci njiital Serigne Baye Ndiaye ak association centre euh, Mbacké marché central ci njiital Serigne Xaarim Sow ñoom nag jëloon nañ fi ay yére ñaari rull yu toll cinquante cinquante cinquante morceaux yenn yi ay bassin la yenn yi nekkoon ay super 100 ñawoon nañ ñu lu toll 468 pièces yoo xam ne ni yére yi mi ngi tàmbalee zéro ba quinze ans gone gu ëmmagul at ba keroog ngay am fukki at ak juróom ñëwoon nañ ci yërey góor yi tamit lu tolloog six cent soixante neuf yërey góor kon li nga xam ne moom la tailleur yi ñaw mi ngi toll ci 1137 ñawoon nañu junni yëre ak téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar yoo xam ne nii ay yëre góor la ak yëre jigéen te lépp tamit yu yees la. li nga xam ne suñ bokki bi ñoo ko dajale muy ay yëre yu yees yoo xam ne dañ koo ñaw ba noppi indi ko loolu lim xaw naa takku waaye dañuy ñëw ci li nga xam ne moo fi dajal lépp li nga xam ne moom lañ am ci ay yére li nga xam ne moom lañ am ci ay yére yu góor yoo xam ne yére yu góor la ñu ñëw ko ba mu sotti mi ngi toll ci 2544 ñaari junni yére yu góor ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak ñeent li nga xam ne moom lañu am ci ay yére yu jigéen yu ñëw ba noppi mi ngi toll ci mille 19182 maanaam fukki junni ak juróom-ñeent ak juróom-ñeent junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar li nga xam ne moom lañu am ci ay yërey xale xale yu góor ak xale yu jigéen mi ngi toll ci mille 6956 juróom benn junni ak juróom ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom benn am nañ fi itam ay ay yeneen xeet am nañ fi itam lu tolloog ay dàll lu tolloog 917 dàll juróom-ñeenti juróom-ñeenti téeméeri dàll ak fukk ak juróom-ñaar am nañ itam ci ay rido lu tolloog 132 téeméer ak fanweer ak ñaar am nañ itam ci ay écharpe muy col yi nga xam ne moom la ji suñ suñ mbokki soxna yi tegoo lu tolloog fukk ak juróom-benn am nañ ñetti serviette am nañ lu toll ci ay tiis yoo xam ne dañ ko ñëwagut am nañ ci lu tolloog 601 juróom-benn téeméer ak benn ay dara muy dara bi nga xam ne dañ koy lal ci lal yi am nañ ci lu tolloog 80 juróom-ñett fukk. ay takkaay tamit am nañ ko fi am nañ fi tamit lu tolloog 27 morceaux saabu ak benn parfum ak lu toll ci juróom fukki saak amee ak benn li nga xam ne moom lañ dajale ci ay yére ci bis bi may waxee eh, démb ci guddi lu tolloog min wi liñ jotoon a am ci ay yére mi ngi toll ci 28 682 juróom ñaar ñaar fukki junni yére ak juróom-ñetti junni ak juróom benn téeméer ak juróom ñett fukk ak ñaar mooy li nga xam ne moom lañ dajale ci ay yére yoo xam ne dañ koo ñaaw ba noppi bokkul nag ak yére yi nga xam ne ñëwagun ko yére yi ñëwagun moom am nañ ci lu tolloog juróom benn téeméer ak benn lii nag bokkut ak li nga xam ne moo fi ñëw tey nga xam ne bu ñu ko doon takk daal lu mu néew néew liñ am ci ay yére yu ñu war a séddale ëpp na fan fanweeri junni yére loolu nag bu ko comparé ak daaw day mel ne bu ren bi doublé na bu daaw bi ndax daaw ñu ngi amoon treize mille cent trente neuf yére la amoon juróom fukki junni ak juróom ah, fukki junni ak ñett ak téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent moom la amoon daaw loolu nag day mel ne suñu borom noonu la baaxoo jëflantee ak sëriñ bi li mu waxoon rek ne tayam ju nekk gàccaal na démbam ëllëgam ju nekk dana gàccaal tayam waxoon tamit nifaali wa ibxaa yi waxoo si bilaa xanaa bi kaw ni xadimal Moustapha tatabayanu loolu mooy firndeel lii waaye ni nga xam ne moom lañ ko bëgg defee tamit bu weesoo wàllum yére yi am na tamit lu ñu bëgg a séddale ci ay koppar yoo xam ne dañ koy jàppalee lenn ci nit ñi ñi nga xam ne ñoo jotoon a bindu loolu nag dañ ko def ñaari pàcc dañoo am ñun jël ñoo xam ne nii ñu tawal la am ñoo xam ne leen di jël ñu ñu ñu soxlawoo ay ay toilette am ñoo xam ne dañoo soxlawoo ay néeg am ñoo xam ne dañoo soxlawoo ay fons jël nañ lu tolloog fukki nit ak benn ci ñoo xam ne dañoo soxlawoo ay toilette ak lu tolloog juróomi nit ñoo xam ne dañoo soxlawoo ay ay fons ak lu tolloog fukki nit ñoo xam ne dañoo soxla woo ay néeg ak lu tolloog fukki nit ak juróom-ñeent ñoo xam ne am paj lañ soxla woo ak lu tolloog ñaar fukki nit ñoo xam ne dañoo soxla woo ay xadd ñi nga xam ne nii ñoo soxla woo ay néeg liñ ci war a def lépp mi ngi toll ci 6 millions 500 ñi nga xam ne dañoo soxla woo ay néeg liñ ci war a def mooy 2 millions ñi nga xam ne dañoo wéradi liñ ci war a def ci jamonoy tabaski yi mooy cent millions 267 mille 500 ñi nga xam ne dañoo soxla woo ay xadd liñ ci war a def 3 millions 70 mille loolu lépp boo boolee mi ngi doon 12 millions 137 mille 500 mooy ñi nga xam ne dañu leen a a euh, taxawu ci wàllu googu. li ci des nag mooy li nga xam ne dañ ko war a jàppale suñu bokki taalibe yi su jëm ca kër ga loolu itam ñu ngi koy xayma mu toll ci 10 millions. jamono ji may waxee nii mën naa dem ba ëpp ko nag waaye li nga xam ne moom lañ bëgg a def ci social tabaski gi bu dee ci ay yére mu ngi doon 28 millions yi ma waxoon ci ay yére mu ñaar fukki junni yére ak ak ak fukk ak moom lañ war a def ci ay yére waaye war nañ cee def ci ay koppar tamit lu tolloog ñaar fukki million ak ñeent ci jamono bii may waxee mën naa am nag mu ëpp ko ci kaw loolu nag ñi ngi sant bu baax booleem ñi nga xam ne ñooñu coo dugaloon seen loxo ak ñi nga xam ne amoon na yéene ji jiital ci suñu kilifa yi taxaw waaye di sant soxna yu baax di ko teg ci loxob soxna Bintu Mbàkke mu suñu abi mi ko ci mbooleem soxna yi ak mbooleem ñu nekk ci réew mi ak ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ñu leen di wooy waa diaspora rawatina kër gi nga xam ne nii moom lañ ñu abal nga xam ne fi lañ ko def muy sëñ Cheikhouna Ndiaye mu nekk Toscana ci dëkk bu nu wax si ànd koog ñoom sëñ Ibrahima Sall ak mboolem dëkkandoo yi nekk fii yëpp ñu ngi leen di sant bu baax ak mboolem membre Touba Ca Kanam yëpp comité directeur bu dee exécutif ak mboolem waa commission sociale yëpp ñu ngi leen di sant a baax di daaneelaat suñuy kàddu rek di ñaanal suñu sëriñ suñu waajur bi nga xam ne daa àndoon ak ñun liggéey bi ci fu mën a toll muy sëñ Mamour mu Cheikh Mamadou Fadal ñaan suñu borom gën koo yokk ay xéewal te gën koo dolli ay yërmaane ndax mbooleem lu ñu mës a ànd rek ci saayir ak ci baatin lépp mu ngi doon jàppale kon ñu ngi daanal foofu suñu kàddu di ci détails yi xam naa sëñ Bay Si dana ko àggale maanaam commission sociale nag comme ñi nga xamee Touba Ca Kanam noonu lay doxee Touba Ca Kanam li ko tax a jug mooy defar dëkk bi ak jàppale ñi dëkk ci dëkk bi defar dëkk bi nag mooy làmp yi ngeen gis ak poste santé yi nga xam ne nii ñu ngi koy war a tijji suba sax incha allah am na ñetti poste santé yu war a tijji ñu ngi koy yëgalaale bokk taalibe yi ngi koy jëlee ci ñaar téeméer yi nga xam ne moom la ñuy laaj par weer bu nekk bu dee commission sociale nag li nga xam ne moom la jàppale nit ñi ab jaayante doon boo xam ne nii lu waay man rek mën ko cee dugal maanaam amul xeebuñu yéemuñu lu tàmbalee ci dërëm ba ay milliards lu ci waaye indi rek ñu mën koo defal ci dëkkandoo yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bokki jullit yi bokki ñu ngi leen di nuyu ci tuur sunu jëwiñ sunu kilifa Cheikh Habibullahi Cheikh Mamadou Fadil mi taxaw ak ci tuur mboolem waa Touba ca kanam di jiital ci nuyoo bi ak siyaare bi Cheikh Mouhamadul Mountakha mu fi nekk Serigne Touba yi ñu yoon wi di jëwiñu liggéey bi ñu ñaan yàlla suñu borom mu yàggal ko suñu kanam lool te may ko ak wér ndax moom fu Touba ca kanam ak si tey gannaaw yàlla ab taxawaayam te ba mu tàmbalee te booba mu doonoon jëwriñu sëñ Sidi Muxtaar waaye bi mu doonee jëwriñu sëñ Touba it la mu waxoon daa feddaliwaat ak laxasaayam gën a ñoo ñaaxaat ci Touba ci kanam gën ci ànd ak moom kon ñu ngi koy sant bu baax te di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi te àggale yéeneem yi mu yéenee liggéey ci lislaam yéene ko liggéey ci yoon te ànd ko ak loolu nag ñu yëkkati kàddu cant jëmee ko ci mbooleem mbokk yi nu bokkal ànd ak ñoom liggéeyu Touba ci kanam waaye nag di ko tàmbalee ci sunu jëwriñ ji taxaw Cheikh Habibullahi mii nga xam ne kilifa gu mat kilifa la jëwriñ ju mat jëwriñ la ndax li ko tegtal rek mooy taxawaayam bi mënoon naa yable des ci kër gi waaye lu mu mën a doon day ñëw taxaw jiite ko ànd ko ak ñun te sunu yabaloon képp nu mën koo teewal mu doy sëkk loolu nag pësseefam ak itte ju ko liggéey bi itteel ak ñëw gu ko liggéeyu sëñ Tuubaa bi ñëw loolu rek moo waral mu koy def waaye amoon nañu ko ci mën a teewal kon ñu ngi koy sant bu baax te ñaa yàlla na yàlla sunu borom mu yàggal ko sunu kanam te àggale mboolem ay mébétam di sant mboolem nag waa Touba Kanam gépp rawatina waa commission sociale ci njiitu sëñ Mourtala mi nga xam ne moo ko jiite di nuyu soxna Bintu Mbàkke mi nga xam ne mooy jëw ñu soxna yi Touba Kanam yëpp di fab ab nuyoo bi di ko teg ci loxoom mu jottali ñu ko ci mboolem soxna yi mu àndal liggéey bi yëpp wax ne soxna yi moom dafa mel ne liggéey bi Kanam gépp ñoo ci man waaye social bi da ci raw ndax jàpp naa ne yéer yi fi ñëw buñ ko xooloon li soxna yi indi mu ëpp fuuf li fi góor ñi buñ ko xooloon itam li ci yéey jigéen mu ëpp fuuf li ci yéey góor kon yaakaar naa ne loolu tegtal la ci ne soxna yi moom mën nañ ci Touba ci kanam ci lépp waaye social bi moo ci raw kon ñu ngi leen sant bu baax te di leen ñaanal te ñaan yàlla mi nga xam ne moom moonu digal nu yëkkat suñu alal di ko joxe ñu tane moom mi ko daale te digge ci lam nu lam ñu ca digg yàlla nañ ca daje lu ko kawe ci bàkki Sëriñ Tuubaa ndax joxe sa alal ci yoonu yàlla wala tànne sa mbokkum julli dimbali ko li ci nekk ci toyaaba ku ko xamoon loo am da nga ko xaaj ci digg ba bokk ak sa mbokki jullit ku ko xamoon men ñaari mbubb yoo am me sa gis sa meneen mbokkum taalibe bi amul meneen mbubb wala sa mbokku jullit amul meneen mbubb da nga fab menn jox ko ndax saxaaba yi nga xam ne ñooy suñu bàyyi ci diine aggoon nañ ci euh, muhajirin bi nga xam ne gàddaay nañ Makka ñëw Madina su mën a wax lan nañ ci ku ci yor ñaari soxna bàyyi benn ba jox jox ko amul soxna benn ngir bañ a ñaari soxna te sa mbokkum jullit yowul soxna kon ay yéega taxut wax ku mën a bàyyi soxnaam joxe ay yéega taxut di wax te ñooñu la sëñ bi daana ñu wax daana wax mag ñi ne saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci diine te nun mag ñooñu ñooy suñuy bàyyi ci yoon kon nan xam ne lun am dañ ko bokk suñu bokk julli yi lun am dañ ko bokk suñu bokk bi kon nag alhamdulilah maanaam ne yéeg-yéeg boobu bi ko waa Touba ci kanam amee ba taxawal lii ñu taxawal waaye alhamdulilah maanaam bi ko bokki taalib bi yëpp amee ba tax weston bu ne jëlee nañ fa ba bitim réew jëlee nañ fa ay indi ko ci social bi kon ñooñu def loolu nañ xam ne seen jëf jooju yàlla mi tax ñu def ko ak jëmmi sëñ gis na ko yàlla na ko nangu te fay leen ci lu kawe seen njort ci bàkki sëñ Tuubaa te xam ne yoon waa ngoog dog nañ ko te buñ ko wàcc ndax joxe gi day tax am waaye du tax a ñàkk te ndax suñu borom moom lu mu daale man na ko te te dana ko def ndax wax ne wax nit ñi ne danaa leen defal nangam te du ko def moom du ko ci fekk ndax moom moom lépp su ko dara ko ci nekko danaa leen ne def naa def nangam te moo ne wa ma anfaqtum min shay'in fa lu ngeen joxe ngir man dundale ko danaa leen wutalal loola te buy wutal lu gën waxu waxee yow waasi na mooy kon lu gën lay doon ndax ndax moom mooy ngeen jikkoy wërsëgal kon buy wuutal la gën la fa nekkoon lay lay lay joxe kon liñ ci joxe rek na nga xam ne suñu borom danañu wuutalal lu ko gën fopp te ëpp ko kon buñ buñ tay ci joxe bi buñ yokk ci joxe bi nañ fa siyéene lu ñu laaj nañ ci def lañ mën ngir jëm ngir yàlla ak jëmi sëriñ Tuubaa rawatina nag ku koy def ba noppi jaarale ko sëriñ bi ndax sëñ moom jëfam yàlla daa nangu lépp lu jaar ci moom suñu borom nangu lépp lu adressé sëñ bi rek yëpp jëf yoo jëf ko te adressé ko sëñ Tuubaa deesu ko seet sëñ bi laa daana ko misaal ci lettre boo bind président de la république nee na kenn fu mu àgg fexe mu gaaw jàll waaye kenn ñimu ko tepp te àggu ci président nee na jëf ju jóge ju yëm sëñ Tuubaa noonu la mel li ci yàlla kenn du ko def directement ci suñu borom suñu borom koy nangul boppam ndax daa nangul lépp sëñ loolu mu kon alhamdulilah ba defal nu tawfeex ak bi kon nañ ci gën a fawlu gën cee yokk suñu itte gën a yokk suñu taxawaay di sant nag ñi nga xam ne ñoo koy taxaw muy suñu motulaay mi jiite commission bi ak ñi mu ko àndal tàmbalee ko ci soxna yi ni ma ko waxee woon soxna na ñoom soxna yi nga ne ñi ngi ci biir yëpp ay jàmbaar lañ toll def social bi rawatina social tabaski bii di sant mboolem bi xam naa duñ su mën a ñàkk tudd ay tuur tey ndax ay jàmbaar yoo xam ne waxtu wu ne ñu ngi ci waaw yi di ñàkk di sonn lu mel nii su accès donte di ma ko daa waxee mëne sant sa bopp moom deesu ko def te Touba ci kanam la waaye nag jaajëf moom faaw nga wax ko ñu jëf kon sëñ Mourtalla yow suñu bi mu nee na ñu ngi lay sant yaa ngi mbooloo mi nga àndal ñëpp waaye nag di sant ñi nga xam ne ñoo la ànd ak yow jàppale ci liggéey bi ba liggéey bi ak si fii muy ñii ci réew mi muy ñi ci bitim réew muy góor ñi muy jigéen ñi muy soxna yi ñi nga xam ne ku mel ni soxna Seynabou Sène mi nga xam ne moo topp ci yow soxna Assuwaaj ku ci jàmbaar la soxna Ndey Diop ñoom ñett boo leen tuddee damay fab loolu yemal ko foofu ñoom ñu jàllale ko ci soxna yi ci social yëpp waaye bu dee ci liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy def ci wàllu góor ñi ku mel ni suñ Balla Mbooj Xaadim Dieng expert ak suñ mel ni suñ Abdou Khoudous Sakho suñ Cheikh Ndiaye ak ñeneen ñi nga xam ne ñëpp ñi ngi ci di ci jàpp donte nag tudd lim moom mënee suta lim ñëpp waaye boo tuddee ñenn ñi rek ñu yóbbaale ñi ci des kon yéen ñi nga xam ne yéen ngi ci bàyyi seen guddi bàyyi seen sëñ bay siise fàttewuñ ko waxtu wane ñi ngi gis lim ciy def sëñ Baara Faal fàttewuñ ko gis waxtu wane ñi ngi gis lim ciy def kon ñooñu itam mënee su leen a ñàkk tudd di leen jaajëf sëñ bi nee na jaageen jëf na waaye ku jëfut doo ko dégg kon jaa ngeen jëf liggéey bii ngeen di liggéey sant leen yàlla sant sëñ Tuubaa te a yokk seenu laxasaay te xam ne dara du ci neen ndax liggéey mën naa neen ba mu des liggéey sëñ Tuubaa liggéey sëñ Tuubaa te fañ jëm dara du fa doy te tey sëñ sëñ Tuubaa daana wax ne ba sàq ñaar yu fa la am foo fooyu ak mawu fooyu mooy aw yu lu ko fa waay bari la bari la sa xel du lañ maye ca xelum kenn dañu ñaan la ci ndax kenn xamul coobar yàlla kañ lay si moo tax kenn ku ne la am da nga koy fooyoo nga xamoo ba xam bis penc kañ lay taxaw te bu jeexee ci diggante bi dootu am loo jëfandikoo daa ne mawu it foofa la am ndax mawu ku sa jëf ju baax jeex amatoo loo jëm da ngay maw ci sa bàmmeel ndax amatoo foo jëm amatoo dunde da mel ne mbëtt ci sa biir bàmmeel dootoo génn jëm fenn dootoo am loo dunde te di fa xaaw coobar yàlla ba bu sëñ ci taxaw te kenn ku nekk saw yiw buñ la dekkalee ci saw yiw ci lañ lay teg ca ngay jaar ba dem ca bis penc sa saw yiw moom lañ lay peesal bis penc saw yiw moom lañ lay tegal booy jéggi siwaat saw yiw ba ngay dugg àjjana moo lay gunge loola nag wal xiyaasu billaah ku ko néewle ku ko sàggane ba bërile woo ko ba àgg ci foofa mu jeex wal xiyaasu billaah taala la fay sës yàlla nañ ci yàlla musal kon nañ fas yéene xam ay tool dañ ñoo andi ay tool ngir ñu liggéey si liggéey bi ñuy liggéey moom la añ ëllëg te ku amul dépasse mënoo añ kon lii nañ ko xam ne buñ ko xeeb buñ ko xeeb jëf ju am solo la jëf ju am njariñ la yàlla nañ ci sax dàkk te yàlla mi nga xam ne mooy def lu ko soob suñ liggéey bii yàlla nañu ci dimbali dimbalul saa yi ak loolu baati suñ liggéey bii na nu ko sàmmal yàlla nañu ko aawal yàlla bu ci seytaane amu yoon yàlla bu ci yàqkat benn bu mën a yàq yàlla bu mu ci amu jëf jiñ ci jëf it yàlla bu nu saytaane wan suñu bopp mukk ci jëf ji bañ jàpp ne lenn lañ ci doon ci dara ndax ku mu ci noonu fekk nga mbirum sëñ Tuubaa jak te boo faatu woon tey mu wéy di jak kon kenn ci noonu doonu ci dara lépp sëriñ bi kon nu ci wan suñu bopp ñun ñëpp yàlla nañ ci bokk ci sëriñ bi yàlla nañ ci bokk ñu ñu ñu taxaw ci taxawaay bu mat sëkk ñun ñëpp ñoo ngi leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla noonu yàlla boole dimbal defal nu niveau la tawfeex social bi kon mi ngi nii bi sëñ Murtala yéen yoon wi ngeen ko daan jaagale xam ngeen ko kon suñu bu nee na yoon waa ngoog jaagal leen ko na ngeen ko daan jaagale te soññi bokk taalibe yi ñu gën ñu gën a bal ñu gën di andi euh, te xam ne lu waay andi lu waay jox loola nga am ndax lañ lay dencal mu jëm ëllëg kenn ku ne loola nga am li nga lekk moom boo weesee jeex na mbubb mi nga sotti sol bu xawee jeex na lal bi ngay tëdd sax lépp mënoo ko tëdde kon kenn ku ne la nga am mooy la nga def mu jëm ëllëg wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda Allaah ku waxee wan wax sama ajran kon a nañ sonn coono bépp jëmee ko foofu ñu taxaw ci montage ak ñu ko àndal ak sëñ Cheikh Amar waaye nag di sant yi waa ñëw ànd ko ñu jël ko jàllale ko kon yéen ñi leen sant bu di leen gën a tàllal loxo ci liggéey bi dina xam ne liggéey bi noo yéen noo ko bokk liggéey kon lu ngeen mën ci yaatal ko ak jàpp ci ni ngeen ko def te kenn ku ne xam ne la nga cee def donte sa métier it nga xam ne man nga caa am yàlla am ci sëñ bi kon ñu ngi leen ci sant baax di leen gërëm di leen ñaanal yal na yàlla bàkkee seen bu liggéey defal leen ci tawfeex ak ndimbal ba kenn ku ne la nga ci yéene nga am ko ci jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Moustapha ñu ngi leen di kilifa yu baax a baax waaw mbir mi moom ni ñu koy distribuer comme ni commission sociale baaxoo distribuer rek lépp lu muy séddale mooy xool ñi a yittewoo ñu dem jox leen ko loolu nag niñ ko waajalee niñ ko ni ko sëñ bi tuddee mu nekk nii ay mbuus ñu waajal ko mbuus bu nekk fi nekk nii def nañ ci fukki yére am na yére góor am na yére jigéen am na yére xale am na yére yére fu ci biir ñu waajal ko muy fukki yére niñ ko baaxoo séddalee nag dañu def dem ci quartier yi waajal nañ ay oto yoo xam ne dañuy tànn ci sancaan yi ñi nga xam ne ñoo ko gën a yittewoo ñu sarse def délégation benn bu ñu nee ba ca quartier ba oto yi dugg ci biir quartier bi ñuy jël pari mbuur si fekk ndaw yi am Pastef yi nga xam ne ñoom la ñuy àndal liggéey bi la ñuy àndal ñu dugg ci biir quartier bi jël ay mbuus waaxu ba ci kër laaj borom kër gi mu ne ko mi ngi gi teg ko ci loxoom moom moo xool na koy séddalee waa këram noonu lañ koy séddalee yëre yi li muy bari bari bari yëpp ñëkkul nag ne dañoo woo nit ñi naan nañ ñëw ca sees ba wala nañ ñëw fii ci magasin bi jël si déedéet dañuy dem fekk nit ñi ci quartier yi di leen ko séddale noonu la ñuy nu ngeen def ba xam ñu ko yeeyoo waa ñu ko xamee ndax jamono ji nekk dañuy def ay visite de terrain ndax boo gisee lim bi nga xam ne sëñ bi tudd ko ñoo xam ne dañuy sàkku ndimbal ci wàllu faj am ñoo xam ne dañuy sàkku ndimbal ci dëkkuwaay am ñoo xam ne ñu ngi sàkku ndimbal ci seen néeg yu seen am ñoo xam ne amuñu ay wanag déplacement yooyu nga xam ne jamono yu nekk commission sociale ak Touba ci kanam ñi ngi génn di dem di fekk nit ñi moo tax daanaka lenn lu ci nekk xam nañ fa mu gën a méttee donte kon xam euh, ñu bari yittewoo nañ ko waaye xam nañ fa nga xam ne ñu bari ñi ko gën a yittewoo fa lañ nekk foofu la ñuy sukkandiku ndax fu mu doon ci quartier yu wuute dem nañ fa lu ëpp fanweeri quartier ak juróom bu dee ci ñi nga xam ne dañoo dañoo dañoo wéradi dem nañ fa waaye ci ci benn mois bu rek laa laa wax ñi nga xam ne dañuy sàkku xadd dem nañ ci ñoom 18 quartier ñi nga xam ne dañuy sàkku ay ay ay wanag dem nañ ci ñoom fukki quartier ak ñaar yu bokkul te jamono ju nekk ñi ngi gën di dem ci quartier quartier yëpp la ñuy dugg ya gën a sori ba ci gën a jege moo tax moom ñi ko gën a yittewoo moom commission sociale xam na leen bu baax a bu ko defee nag kon ñi ngi li jaajëfal mboolem ñi nga xam ne ñi ngi jàpp ci liggéey bi rawatina nag suñu mbokki téer yi suñu mbokki téer yi ak diaspora bi suñu mbokki téer bi ak diaspora yi ak waa presse bi nga xam ne tamit fu liggéey bi ak yéen a ko fa àggale ndax yéen a jot li communication bi ba nit ñi yëg ne liggéey bi xam tamit tolluwaay bi waaye ngeen di taxaw fu ngeen toll di wane fi nga xam ne li ñuy liggéey fa lañ koy dugal ndax dañoo wax laaj luñ am def ko fuñ xam waaye xamle gi moom yéen waa presse bi la yéen ay nit ñi li nga xam ne ñi ngi koy jox fañ koy dugal kon ñi ngi leen di sant waaye di sant suñu mbokki soxna yi bu baax baax a baax a baax a baax nag bàyyi wuñ kenn waaye ñi ngi santaat borom kër gi ak di santaat borom kër gi nga xam ne moom lañ jàkkaarloo muy sëñ Talla Fall nga xam ne bi magasin bi feesee démb ci guddi bagage yi ñëw amuñu fuñ dem biñ demee di wax waxi luy jox na ko sëñ Touba aal nañu ko nga xam ne fi ne bagage yu bari àggagu leen waaye ma nga koy sant bu baax di ñaan suñu borom yokk ko kattan téer yi nag xam naa jataay bi xat moo tax mënuñu tudd ci lim waaye muy téer yi Touba ci njiital sëñ Mbaye Sarr muy téer yi ci ci bàyyiwuñ kenn daal liggéey bi rafet na set na ndax defe nañ ko yéene ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ Abibu sëriñ laat mu ma biibu dañoom ku ne ngi sellal ci Tuuba garca nag bakkanam mbirum sëriñ bi ku yeex nag gaa yi dem bàyyi la bul sikki sàkka dugal bul wax ma xaar bakkanam turu sëñ Abibulahi Mbàkke mu Cheikh Mahamadul Fadil turu jëwriñ sëñ Abdoulahan Mbàkke mu sëñ Abibu Ilimaan ak ci turu sëñ Murtala Mbàkke mu sëñ Abdou Fatah bi nga xam ne moo jiite commission sociale soxna Maymunatu Mbàkke ñu ngi lay nuyu te di la ziyaar bu baax ci turu kilifa yi di la sant bu baax a baax di la gërëm di rafetlu jëf ji nga xam ne ni jëf nga ko te yàgg koo jëfe lool te muy taxaw temm laxasaayu ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi ci anam yu bare bari ak ci boor yu bari waaye mu gën fese nag ci liggéeyu Touba ci kanam bi rawatina ci wàllu social ñu ko xamee ñu ngi ci waajtaayu tabaski gi dëkk bi itam niñ ko xamee ñun ñëpp dëkk daw làqu la ndax dëkk bu mag la bu bari yërmande Sénégal métti fu baree baree bari rawatina ci dëkk kaw yi bu bare bari jóge fa nag yaakaar Sëñ Tuubaa ak yaakaar fi ndimbal tax ñu bàyyi ko seen i dëkk ñëw sanc si ci dëkk bi am ci ñooñ nag nekkin wi ñu fi nekkee xaw naa doy waar Touba ca kanam nag boole ci ab liggéeyam liggéeyal Sëriñ Touba ci njabootam gi nga xam ne dañoo daw làqutu si gannaawam tax jamono bu ne ñu nekk ci wàllu social ci wàllu am paj ci wàllu tabaxal nit ñi ay dëkkuwaay waaye événement bu ne bu dee koor bu dee tabaski bu dee màggal ñu warlu ci gafak ak ci kanam ak ci ndimbalul ñi nga xam ne dañ koo nangul te wóolu ko dimbale nit ñooñu ci li nga xam ne lépp mënuñu koo ñàkk ñu toll ci waajtaayu tabaski gi nag nga taxaw tem yaak ñu mel ni yow ci biir liggéey bi fas yéene dajale ay yére ak ay xéewal ak lu mu mën a doon rek loo xam nit ñi dañ ko woo ngir waajale ko bis bi nga ñëw nii nga ñëwee ñëw ñëwin wu am solo te mooy dajale ay yére yu riche yére yu góor ak yu jigéen defar ko ba mu mel na mu war a mel yi nekk yu bees teq yi ci des it yu riche yuñ mën a jariñoo nga indi ko teg ko ci loxol Touba ci kanam mu teg ko ci loxol commission sociale ngir ñu jottali ko ci ñi nga xam ne nii ñoo ko aajowoo loolu daal sëriñ bi nee na rafetlu na ko lool lool it bëgg na ci ni ko defee. mi ngi lay ñaanal itam sëñ Tuubaa mi nga xam ne moo tax ngay def mboolem loo ci yéene rek nga am kàttan gu ko raw ba mën cee def lu kawe njort kawe njortul ñëpp ñu ko def di encouragé mboolem ñi ngi ko àndal di leen wax ne jëf ji moom jëf ju yàlla nangu la waaye wóor na ko ni jëf ju sëñ Tuubaa nangu la ndax it ci biir ñaan gu nangu lañ koy defee ndax sëriñ bi ñaanal na mbooleem ku ñëw dëkk seeg moom sa kaaraange ak say xéewal rawatina ñi nga xam ne nekkee nañ ci dëkk bi ci anam gi fi war a nekke daal sëñ baa ngi lay sant di la gërëm di la encouragé di wax ne rek nañ fedd di la xasaay ndax kenn defu fi fii ci àdduna lu ëpp liggéeyal sëriñ bi ndax mooy liggéeyal yàlla mooy liggéey ci toolub lislaam kon nañ ci gën a taxaw bu baax lépp lu luñ ci man ñu def ko lu ci waay yëkkati te yéene ja sell dana yomb lool ci yow te danga ci am lu kawe njort ndax ci biir ñaan gu nangu la ñuy liggéey kon mi ngi lay sant di la gërëm dina ñaanal yàlla mu faj sa aajo yëpp ak ñi nga àndal liggéey bi ñëpp ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo ne ci biir liggéey bi commencé ci soxna Bintu mi nga xam ne mooy jëwriñi soxna yi ak mbooleem ñu topp ci gannaawam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu abibu sëriñ laat moom abibu dañoom ku ne ngi sellal ci Tuuba gar ca nag bakkanam